dëkk bii nag taalibe yi nga xam ne dañ fay nekk te suñ borom dogal ñu dëkk fi te ñu ne wax ne ay taalibe lañ ñuy juddoo ci yoon wi ñuy suñu borom dogal ñu ñëw wàllu jaan ci yoon wi waaye fii lañ dëkk ñëw tuxu si Touba kenn ku ne war naa xam war ma dëkk bi ndax ndax yoon wi dafa am war ma rawatina nag ndaw ñi nga xamee ne ñoo fi nekk bu buñ bëggee ñu am ndimbal war nañoo tegu ci siraatum mustaqim waaye war nañoo dégg nga sëñ Abdou Lahad danaan wax naan ndigal bu mu xam sa yitte say kilifa bu ñu xam saw fit boo seetloo li fi xew bërki démb euh, day day aw fit da ci daay di feeñ te sëñ Abdou Lahad danaan wax kilifa bu ñu xam saw fit ndigal bu mu xam sa yitte kon euh, li nga xamee ne mooy ndigal ci yoon wi ni ñu ko ni ñu ko war a doxalee loolu ndaw yi war nañ cee góorgóorlu bu baax ba ñi ñi tënku ci ndigal loolee ñi nga xamee ne mooy yeneen gox yi nekk ci biir senegal am na ci loo xamee ne seenu seenu jagle la ñoom war nañ koo mën a def ca dëkk boobee du leen wàññi dara waaye dëkk bii nag dafa am loo xamee ne jagleeg boppam la loo xamee ne kenn wuru ko fi dugal ndaw yi fi nekk nag war nañoo ràññee loolee ba nga xamee ne ndaw yi nekk ci biti ci ñoom la ñuy roy waaye ñoom wuru ñoo génn di jéggaani di roy di roy ñooñee ci la ñuy doxalee te loolu mi ngi wut ak bëgg-bëggu dëkk bi kon loolee maay képp wax ne mi ngi dégg sama kàddu na ko bàyyi xel bu baax a baax te góorgóorlu ci te nekk ci ndigal yi ndax mooy tax ñu doon ay murit mooy tax suñu taalibe mën a dëgër mooy tax tamit saytaane duñu mënal dara ndax bu suñu suñu taalibe dëgëree suñuy kilifa suñu kilifa té ñoo ñuy té ñoo ñuy taawu te ku say tëli say kilifa taw seytaane du am ci yow wàll euh, macha allah jërëjëf ngeen dégg ko noonu Seexul Xaddim mu euh, sëriñ euh, ni ma leen ko waxee woon léegi mu sëñ Sidi mu sëñ Abdou laat tey moom la ñu fekk si woon tey ji di sant tamit sëñ Moustapha mi nga xam seen tamit moom la ñu njëkk a àndal ci jataay bi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di sant suñ cameraman moo Modou Diouf di sant ñi nga xam ne ñoo ñu topp ci 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen jotaay